nga fay tàggoo waaye balaa bi dee nga doog koor gi. waaw man jaar. man eh, jaar. yow Xaadim. waaw lépp jaar. Xaadim yow laay waxal de Xaadim yee. Jóob dafa yabaate. mère mère du yàq sama. yow Xaadim sa papa te duggul whatsapp si kër gi. waay luy loolu. tey whatsapp ngeen nekk fii di. Xaadim amoo teggin de. Xaadim nit ku baax day am teggin. Eh, eh, xoolal gis nga yow du ma sa morom. du ma sa morom. yow man moom naa ma ko laa dégg. ah vocal damay whatsapp. waaw kay yow xaalis lan laa wax fi barki démb. démb démb ci ci biig ci guddi. damaa ñoom ñu man ah yu wóote ma fi réunion eh, dégg nga ma. andi alisa bi andi alisa bi na teg fi alisa bi sama loxo. yow yebaatal na sa papa di waxante yow yow. amul dara la léegi léegi man léegi moomu sama téléphone léegi moomu sama whatsapp. waaye doo whatsapp dama dama whatsapp. yow de waxuma waxuma sax benn waa. li des ci koor gi li des ci koor gi ne doo ci whatsapp. li des ci koor doo doo ci whatsapp. kii nii yaa tee ma yóbbu ko benn démb de ngay wome. ah ah sañ naa waxtaan ci kër belal laa ko jëmee belal. kii na dem belal de. ah ñi yaay yooyu góor yi du belal. waaw rek. nii ngeen def koor gi moom nii laa ko bëgg moom jaaraay la ma li ma bëgg moom moo ci ne. li ma bëgg kan moo ci ne. yow moom xaadim moom waxoo si moom du ma si moom dara ndax dundalul koor gi. dundalul koor gi koor gi dundalul ko. eh ñu ne tànk soxla lebal xaadim yaa ko yàq. man ak jombi naa man yow moom xaadim du sa morom tàmm nga heure nga si sa papa waxatee xaadim nga si dugg waane bay a def baax na yow daal jaar nekkati noonu rek nekkati noonu rek ko tuub nag ko def lu yoon ah yow sa papa la yàq waaye du ma dara boobu ba léegi mënu ma koo di naaj bi dafa tàng waay. loolu boo ñëwee ci arrêt bi nag di xaar cinq moom da ngay waaye xanaa da nga adof ah xam nga lu mel nii dama leen a woo sama kër wax leen lu leer nañ ne koor gi nañ ko dundal nañu dundal koor gi. war nañuy dundal koor gi ngeer sa mbuusub caakri dégg nga maam duy ah, ko moom fees nii ah, di di di di rek di naan yow eh, dimbali ma laa la bu ma waxaat dimbali ma de sa kër nga am looy ah. tere waaye du fii ak fépp yow da ngaa bëgg dama koy taxaw hmm? dama koy taxaw taxalaat ma ko dama la ko taxalaat danga ma ko doo ma ko taxalaat <laughs>